kilifa lebu yi la ñu bëgg lenn la mu di waxtaan wu dox seen diggante ka kilifay nguur gi kilifa yoo xam ni ñu ngi leen di ñaax ñu wëyal liggéey bu ñu sumb ba taxawal travaux yi ñu amal la ci littoral bu ndakaaru bi